أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw ba ñu tàmbalee ci turu yàlla di ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko dellu si waat nañ ci seen télé TSL Saint-Louis télévision ci waxtaan wuñ leen di defal ci waxtu wi tey ñu dellusiwaat ci sunu émission ci sunu waxtaan rijalun xawla rasul góor ñi nga xam ne ñoo waroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñu koy wax xayaatu saxaaba ñu tànn ci kenn koo xam ne moom la ñuy wax innahu ibnul islaam mooy doomi lislaam bu ñu yemoon fii rek dañ xam ne kon kii du ku ndaw buñ ne diw diway baayam te baay ji nekk ku màgg ñépp danañ xalaat doom ci suñ ci doon joxe misaal suñ ne kii doomu président la république la ku gis gàngoor ya muy àndal ak la koy wër ak la koy dar ci bëtu nit ñi ku màgg lay doon suñ ne diw mi doomi xalifa général la lu muy tekki mooy kooku day màgg ci nit ñi kii doomu sëriñ diw la kooku ku màgg lay nekk ci nit ñi waa koñ ku ñu tuddee doomi lislaam kooku kon naka la war a toll innahu ibnul islaam kama kaana yaatabiru huwa an nafsihi moom moo ko jàppe woon boppam ne moom doomi lislaam la ndax suñ ko laajoon noo tudd foo bokk kuy sa way jur bu góor ak bu jigéen day wax anabnul islaam man maay doomi lislaam abu abdullahi alfarisi saabiqul farasi ila l islaam saxiba annabi sallallahu alayhi wa sallam wa xaddamahu wa xaddasa maahu kii mooy salman alfarisi radiyallahu anhu wa ardaahu mbokk yi kon ngoonub tey gi bisub tey bi salmaanul farisi lañ ci waxtaane kenn la woon ci saxaaba yi waroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li leen lay woon ne du ku ndaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax wax ju màgg ji ci kawam te keroog ba ko yonent bi di wax mu ngi jël loxoom ndey joor bi teg ko ci mbaggi salmaan yonent baa ngi naan law kaana al imaanu bi suraya la tanaawaluhu rijalun min haula qaalaha rasul sallallahu alayhi wa sallam wa kaana waadian yadahu ala salmaan yonent bi nee na ngëm yàlla su sori woon ba nekk ca barab bu soree sori bu ñuy woowee suriya nee na salmaanul farisi dana ko jëli góor ñiy wër ma danañ ko jëli mu ne bokk na ci ñooñu salmaanul farisi kan mooy salmaan ci benn dëkk buñ naan jayaan wala ji boroom xam-xam yi tuddee nañ ko ñaari tur yépp kaanat wilaadatuhu ci barab boobu la juddoo moom salmaan barab boobu fan la nekk ci dëkk buñ naan Iran ci Perse nee na fala Salman juddoo fala xippe ay bëtam mbokk yi pour ñu xam dëgg-dëgg kan mooy Salman ñu bugg ko nettali danañ gis ne mooy ki nga xam ne wara alxaqiqi dëgg-dëgg moom Salman dox na ci ginnaaw dëgg qissatuna hazihi hiya qissatu saa'i wara al xaqiqa sunu waxtaanu Salman mooy waxtaanu waa ji nga xam ne dox na di gëstu dëgg di ko wër ba daj ko jël ko albaaxisu anillah mooy ki doon wër yàlla subhaanahu wa taala salmaanul farisi radiallahu anhu wa ardaahu nañ ko bàyyi moom salmaan mu nettali ñu mbiri boppam pour ñu mën a jëriñu dëgg-dëgg ci moom salmaan lan la daj bala muy dugg ci lislaam ak moom salmaan moom mooy kan ndax tungu ne du teew ngay nataal comme moom moom la mbir mi daloon moo dund mbir mi ñu bàyyi ko moom salmaan mu nettali ñu xew-xew yi nga xam ne ay jaar-jaaram yi nga xam ne jot na cee jaar ndax yëg-yëgam mooy gën a xóot sunu yëg-yëg waxam mooy gën a dëgg sunu wax moom salmaan nee na kuntu fatan farisiyan min ahli asbahan aw asfahan nee na ndaw laa woon bokk ci waa perse juddoo fa màgge fa yaroo fa ci gox boo xam ne ñu ngi leen di woowee asbahan wala asfahan ci benn ville diggante ci biir Iran diggante capitalu Iran fi ñu naan Tahran ak Siraz fa la dëkk bu ñu naan ji wala Jayaan nekkoon moom Salmaanul Farisi radiyallahu anhu wa ardaahu foofu la juddoo. mu ne wa kaana abi duqaxaanul qarya sama baay moo doon chef de village bi wala chef de quartier bi wala imaamu quartier ba li ci mun a am mooy sama baay daal moo jiite woon gox ba wa agna ahliha ginan yemul woon rek moom baayam jiite dëkk ba jiite quartier ba wala gox ba wala barab ba waaye moo fa ëppoon alal wa a'lahum manzilatan nee na baayam moo ëppoon martaba kon baayam la mu jiite woon ci dëkk ba du lu ndaw boo nekkee chef de quartier ca dëkk ba ëpp alal ca dëkk ba gën faa kawee martaba kon yow nekkatoo ku ndaw sa doom du ku nekk lu ndaw ku ndaw mu ne wa kuntu ahabba xalqillahi ilayhi munzu wulittu ma nekk koo xam ne nag ba ma juddoo man la sama baay gën a bëgg ci lépp nag lu mu am ak lu mu gis lu tax ndax baay ji da ko yàgg xaar dafa yàgg xaar doom ji moo tax ba mu juddoo mu gënal ko sax ñaari bëtam gënal ko lépp lu mu gis summa ma zaala xubbuhu lii yastaddu wa yazdaadu alayya xatta xabasani fi l bayt xasiyatan alayya nee na bis bu nekk mbëggeel gi ma sama baay bëgg di gën a yokk bis bu nekk guddi gu nekk waxtu wu du nekk mbëggeel mi di gën a yokk ba sama baay jàpp ma ne ma ràpp ci néeg ndax bëgguma bokk ak kenn ndax tiit gu muy tiit ci man su ma génnee dara dal ma wala dara laal ma moo tax mu jàpp ma tëj ma kama tuxbasul fatayaat comme ni nit di amee doom bu jigéen di ko fiire di ko tëj noonu la bàyyi salmaan bëggee salmaan di ko fiire mu nekk doom ju góor ba mu jàpp ko ne ko ràpp ci nekk tëj waaye lu ko jiitu waqad ijtahadtu fi lmajusiya xata gadawtu qiyama annaari allati kunna nabaduha nabuduha wa unita bi amru idramiha xata la taxbuwa saatan fi laylin aw nahaarin salmaan nee na ku góorgóorlu woon laa ca diine ji nga xam ne moom laa fekk sama ndey ak sama baay di ci dund muy maju siya muy jaamu safara ñi jaamu safara ñoom la ñuy wax almajuus nee na loolu laa fekk ci sama jamono sama ndey ak sama baay nekk ci ma nekk ci waaye dem naa ba raw leen ci diine jooju dem naa ba ñu takkal ma ci ndomba tànk takkal ma ci garaat mooy man lañu dénk safara si bu mu fay ma koy xam bu guddig bëccëg foo seen safara si muy sànni ay ceeñeeru tàkk-tàkkam ca kaw wa kaana li abi day atan aziman tudiiru alayna gullatan kabira mu ne waaye sama baay amoon na tool bu rëy sama baay daan daan na ko yittewoo lu baree baree bari muy tool boobu nee na benn bis am lu ko yitteel ba mënul dem ca barab ba mënul dem ci tool boobu mu daal di may sant ne ma yow doom dëgg-dëgg tey de dama am lu ma yitteel dama bëgg nga dem wutuma ca tool ba na fazhab ilayha wa tawallal yawma anni sa'naha demal tey nga yittewoo mbir mi nga wuutu ma fa lépp lu ma fa doon def def ko fa yow sama doom salmaanay nettali mu ne fa xarajtu aqsudu day atana ma génn wék ko samay bagage jëm ca barab ba wa fi ma ana fi baadi tariq marartu bi kani satin min kana isin nasara mu ne ci yoon bi ma jox di dem ba ci yàgg rek ma romb benn barab bu nasaraani di jaamu yàlla bu ñuy tuddee église mu ne ba ma rombee barab ba fa sami'tu aswaatahum fiha ma dégg seeni baat ci biir barab boobu ñuy jaamu yàlla wa hum yusalluuna ña fa nekk dañuy julli mu ne sama xel nekk ci ñoom ndax nag li tax mooy musuma ko dégg musuma ko gis man li ma xam mooy jaamu safara tey ñëw naa ba fii ma séen lii gis ko teg ci bët waaye xaw ma ci dara ma ni ah tey daal duma romb li ludul ma jéem koo xool jéem koo yër xool lii lumu mu ne ma daal di dugg ànd ak ñoom mel ne ku ci bokk ginnaaw ba ma déggee seeni baat mu ne ma dugg pour ma xool lu fi xew mu ne ba ma duggee toog di xool di dégg ma xerawlu ne teg li ma njëkk a jaaxal li ma njëkk a yéem mooy seeni julli ñoom nañuy jullee dafa wuuteeg ñun majusi ni ñuy jullee ci jamono boobu rek wa raghibtu fi diinihim nee na seen diine ji daal di may dugg ma bëgg ko fa qultu mani wallahi hada xayrun min allazi nahnu alayhi mu ne ma giñ ne lii dey moo gën ñun lañu nekk ndax ñii yàlla la ñuy jaamu ñun safara la ñuy jaamu fa wallahi ma taraktuhum xatta garabati shams mu ne giñ naa ci yàlla bàyyiwuma leen ma ànd ak ñoom ànd ak ñoom ba jant bi so walam azhab ila dayati abi demuma ci sama baay ca barab bam ma yónni woon su ma inni saaltuhum ayna aslu haza din mu ne yemuma ci loolu waaye dama laajte waaye yéen seen diine ji ngeen nekk cosaanam fu mu jóge mu ne qaalu ñu tontu ñu ne ma fii bilaadi sham mu ngi jóge ci réew muñ naan sham fa lamma aqbala leylu mu ne ba guddi gi jege see bu leen fàtte ne sama baay ma yónni woon de waaye ca bëccëg la woon ma jàdd ginnaaw ba ma séenee nasaraan yi nekk ci seeni barab bu ñuy jaamoo yàlla ma dem nekk fa ba guddi jot fa lamma aqbala leylu uttu ila baytina ba guddi gi jotee ma dellu ci sunu kër fa talaqaani abi yasaluni amma sanaatu ba ma duggee barab ba dugg ca kër ga rek ma dajeek sama bàyyi mu ne ma waaw naka sa journée tey fa ma la yónni woon naka mu fa qultu ya abati inni marartu bi unasin yusalluuna fi kanisatin lahum fa ajabani ma raaytu min diinihim mu ne ko bàyyi dëgg-dëgg ba nga ma yónnee day dama romb ay nit ci benn barab ñu jaamu yàlla ma dugg doon xool rek mbir mi neex ci man ma faf toog fa fa ma ziltu indahum hatta garabat shams dañu ma di fa toog rek ndeke jant sono sama kaw ba foog ma yónni woon mujj maa dem lu xew ku amoon doom ju mel nii nga yónni ko mu tontu la tontu bi lan nga yëg mu ne fa zoira abi sama baay tiit mimma sanaatu ci li ma def sama baay tiit fa qaala ay bunayya laysa fi zalika diini xayrun mu ne ma doom diine jooju yiw nekk ci diine jooju baaxul diine jooju njëriñ nekku ci diinu ko wa diinu abaika xayrun minhu sa diine sa diine bàyyi moo gën diine jooju nga gis ndax yow safara ngay jaamu ñoom leneen la ñuy jaamu mu ne sama baay wax na ma loolu waaye dama tontu fa qultu ma ni ko kalla déedéet wallahi inna diinahum la xayrun min diinina baay diine jooju ma gis barab boobu ma dugg ña fa nekk seen diine jooju ñun ñu gëm moo gën sunu diine ji ba ma waxee loolu rek fa xaafa abi sama baay tiit mimma aqulu ci lii may wax sama baay tiit xel mi dalatul wa xasiya mu ragal moom sama baay an artadda an diini ma murtat ci sama diine bi ma sama baay laajee ma tontu dafa tiit sama baay ragal nag ma bàyyi li ma nekk ma bàyyi diineem moom sama baay ma bàyyi samay diiney maam léeg-léeg nga digg ku ne ay yéen da ngeen di bàyyi seeni diine maam mbokk yi sunuy maam amunu diine diine ji diine yàlla la inna diine inda allahi l islaam diine yàllaa ko moom benn maam moomul diine su fekkoon am na maam mu mu am diine bu deewee yóbbaale diine ji waaye diine ji diine yàlla inna diin inda allah al islaam diine ji diine yàlla la benn baay ak benn maam moomul diine xultu ma ni ko moom baay ji mu ne ko ginnaaw ba mu tiitee mu ne ko sunu diine moo gën diine jooju doom ji tontu ko ne ko inna diinahum la xayrun min diinina bàyyi giñ naa ci yàlla ne diine jooju ma gis moo gën sunu diine nee na bàyyi ji tiit marak bàyyi ji tiit doom ji murtat mu daal di jël doom ji dugal ci néeg jël seen takk ci tànk yi mayetuñu kenn mu yegsi ci moom kenn dootul egsi ci xale bi dañ ko isolé ber ko lekk moo fay dugg ak naan leneen waxi noppi waaye moom Salman yemul ci loolu mu ne ma am temps ma am benn occasion ma yónnee ca nasaraan yooyu mañ leen bu ngeen amee benn caravane bu jëm saam ngalawaay naa ko yëg nee na fa ma huwa illa qalilun rek xata qadima alayhim rakbun muttajihun ila sham ba ma yónnee ndaw loolu dem ñëwaat ci waxtu wu néew rek ñu am benn caravane benn njëg bu war a jëm sàmm ñu ñëw yëgal ma ko biñ ma ko yëgalee ma fexe ba tekki samay chaîne yi sama baay chaîne woon ci sama tànk ma daal di dem jaxasoog njëgg ma wa xarajtu maahum ma ànd ak ñoom muxtafiyan xatta balag na bilada sham ma ànd ak ñoom nëbbu ci biir mbooloo mi ba yàlla def ma egg ànd ak mbooloo ma ca Saam falamma nazalna fiha ba ñu demee bay yegg ca dëgg ba wàcc mu ne laaj naa ñi ma àndaloon qult man afdalu rajulin min ahli haza diin waa diine ji muy diiney nasaraan ci dëkk bii kan moo ci gën a baax ku ko ciy dund ñu ne ma qaalu ñu ne ma al asfaqu ñu ne ma asfaq la asfaq mooy cardinal ñu ne ma cardinal diw la moo ko moo fi gën a baax moom mooy sàmm église boobu mu ne fa jiituhu ma dox ba egsi ci waa ji fa qultu inni qad raghabtu fi nasraniya ma ni ko man day wax dëgg yàlla lii nga nekk daf maa convaincre dama ko bëgg dama bëgg dund diine ji wa ahbabtu an alzamaka wa axdimaka wa ataallamu minka wa usalliya maak li ma bëgg nag mooy sax ànd ak yow liggéeyal la jàng ci yow di julli ànd ak yow gis ngeen mbokk yi ndeke nit ak sëriñam danañ ko jàng ci njànginu salmaan mii lan lañ ci war a jële nga takkoog moom liggéeyal ko waaye jàng ci moom waaye buy jaamu yàlla nga ànd ak moom jaamu yàlla waaye xam ngeen ne tey lu bari ci ñun dañuy bëgg nit ñëw ne ko jox nañ la sunu bopp muy jaamu yàlla yow nga dem tëdd di nelaw muy jaamu yàlla yow ngay fo muy jaamu yàlla yow ngay caaxaan te nga ne ko man yow laay topp moom buy jaamu yàlla yow ngay fo loolu lu ñu war a xoolaat la fa xaala mu ne ma udduxul waa ji daan ma ubbil bunt yi ma dugg ma nekk ak moom di ko liggéeyal ñu dem diir ma yëg ne waa ji ndeke bandi la kii du ku baax kii du nit ku jub ñu ne Salmaan lu tax nga wax loolu mu ne faqad kaana ya'muru atba'ahu bis sadaqa wa yuraghibuhum bi sawaabiha fa iza a'tuuhu minha shay'an li yunfiqa fi sabili li yunfiqahu fi sabilillahi iktanazahu li nafsihi walam yutihi alfuqara walmasakina minhu shay'an hatta jamaa sabaa qilalin min azahab salmaan bi mu nekki baaxul ndax ànd bi mu ànd ak moom yàgg ànd ak moom mu yëg ne waa ji baaxul ñu ne ko lu tax mu ne waa ji day digal nit ñi nañu saraxe mu leen di xemmem loo tiyaaba di leen wax lu baax ba nit ñi génne seeni alal jox ko pour mu def ko ci yoonu yàlla pour mu saraxe ko jox ko miskiin yi jox ko ñi ñàkk bu ko gaa yi joxee ne ko joxeel mu jël denc ba waa ji dajale na juróom-ñaari ndàmba ci or ak urus la dajale ci li ko nit ñi jox naan ko joxeel moom day denc mbokk yi est-ce que kii rek tey mooy def noonu est-ce que bëriwul tey ci diine ji di lislaam ku naan indi leen ma joxe ñu jox ko mu dugal ci poosam noppi ndax bëriwul tontu bi ku nekk fi nga toog tontul tontu bi sa bopp nee na waa ji daje na juróom-ñaari ndàmbay urus ak xaalis nee na ma bañ waaj bañ bu métti ndax li ma gis ci moom ñu toog diir waa ji faatu gaa yi dajaloo ñëw di ko bëgg suul ma ñu leen seen waa ji de baaxul woon ñu ne ma lu tax nga ni baaxul te mooy sunu njiit mooy sunu kilifa mu ne ma wax leen maa nekkoon ak moom ma wax leen li ma gis ñoom ñëpp ñu ànd ñëw daj ji néeg ba mu dencoon mbir ma ñu gis ne la ma wax dëgg la ndeke mosu ko joxe lépp daf ko rënkal boppam di ci dund di ci noos di ci yaataa yimbe ba pare ne nit ñi lay liggéeyal ñu merewaa ji wala ñu suul ko ñu jàpp ko lakk ko ba ñu gisee ne man wax naa dëgg yemuñ sax ci bala ñu koy lakk dañu jël waa ji te dee la dafa dee néew la ñu dóor koy xeer ba yaram bi tas ñu lakk ko mu ne ma toog tuuti diir ma génn ginnaaw bu ma laajtee waa diina ji ndax am na ku fi des ku ko jiitawaat ñu ne ma waaw man leen fu mu nekk ñu tegtal ma barab ñu ne ma mi ngi Mawsul Mawsul benn dëkk la bu nekk ca Iraq dëkk bu yàgg la mi ngi ci benn dex bu tudd daj la ca Iraq foofu la dëkk boobu nekk Salman nee na ba ma laajtee ñu ne ma waaw am na ku baax ku des ci diine ji ku mel ni koo yaakaaroon ne nii la mel Salman nee na ma buub samay bagage déparati bu leen fàtte Salman fu mu jógee mooy daw na jaamu safara ñëw dem saam fekk fa loolu kooku faatu mu départ jëm Iraq mu ne ba mu demee ba yegg mu fekk fa waajooju mu waxtaanal ko li ko tax a jóg kooku daal di nangu mu ànd ak moom mu ànd ak moom mu takkoo kooku mu gis ne kii mooy ki mu doon wër ku baax kaa ngi nii jaamukatu yàlla diglikatu lu baax koo xam ne lu mu wax def ko nee na ma ànd ak moom ànd ak moom ànd ak moom moom it bala dikkaloon kële dikkal ko mooy faatu waaye bala muy faatu laajoon naa ko ne ko boo faatoo nag léegi fu ma jëm mu ne ko demal dëkk bu tudd Nasibin dëkk boobu fu mu nekk moo ngi ci ginnaaw saam mu ne ma dem encore fekk fa waajooju ànd ak moom ànd ak moom bala dikkaloon kële moom it dikkal ko ma laaj ko moom it soo fi jógee ci kan laa jëm mu ne ma demal amuriya amuriya amuriya tamit moom it dëkk la boo xam ne ci boori dëkk yooyu la nekk sorante wuñ mu ne ma dem fekki fa waaju baax jooju moom it ma dem ànd ak moom ànd ak moom ci jaamu yàlla ci def lu baax jàng ci moom moom it bali dikkaloon këla dikkal ko mu ne ba ko dee dikkalee fa lamma xadarathu lwafaat qult lahu ba ko dee dikkalee maniko innaka taalamu min amri ma taalamu fa ila man tuusi bi yow de xam nga sama mbir lang ca xam yaa ngi nii nag di waaj a faatu koo may bàyyeel wa ma taamuru nii an afala loo may digal ma def nee na waaja ne ma yow sama doom tey jii de fii nu nekk xawma ci nit ñi ci kaw suuf ku fi des ku yore diine ji daan ci def ñun lii ñu ciy def xawma ci kenn waaye day li ma lay sant mooy waxtu ñëwug yonent mujjantalu jamono jege si na am na yonent bu yàlla war a yónni jamonoom jot na waxtoom teew na mu ngi koy yónni ci dëkk boo xam ne dafa bari tàndarma dëkk boo xam ne ay montagne xeer a ko wër pour nga xam waajooju mooy kan àddiya lay lekk du lekk sarax diggante ñaari mbagg ya dañ fa tamponé xaatimu nubuwa sallallahu alayhi wa sallam dañ fa kaste benn tampon benn cachet lañu cachet ci diggante ñaari mbagg yi ñu ne kii moo mottali yonent yi doom fa ni fa in istataata an talxaqa bi tilkal bilaad fafal doom boo mënee dem dëkk boobu demal bu la dara téye boo mënee dem ba joti dëkku yonent boobu demal nee na waa ji daal di faatu ma toog fa tu diir dajale la may dajale ci sama alal ak la ma amoon ma def par gis benn caravane ay arab ma ñëw ci ñoom ne leen dama bëgg a dem Madinatul Munawwar ma ànd ak yéen su ngeen bëggee ma jox leen sama ñaari nag yi ñu ne ko waaw wala ma jox leen sama xar yi ñu ne waaw mu daal leen di fay la mu yoroon ñaari nag ay xar yu ndaw ndawaan mu jox leen ko ñu daal di ànd ak moom ba ñu yegg ca benn xur ñu daja faak yeneen nit ñu daal di war salmaan daal di koy jaam mu ne daal di koy jaay mu nekk jaam moom salmaan nee na gadaru bi wa baauni li rajulin min al yahud ñu daal di may war daal di may jaay benn waay bu doo boo xam ne yahud la mu daal di may yóbbu def ma ci liggéeyu toolam ma nekk ci waa ji di ko liggéeyal liggéeyu toolam di roose di jëmbat di dagg di bay ba benn bis ma nekk ci kaw garabu tàndarma yi di dagg tàndarma sama patron yahud boobu benn doomu baayam ñëw seet si ko ma dégg muy waxtaan ak moom naan yal na yàlla rëbb waa yasrib tey maa ngi leen bàyyi ci benn barab bu tudd xubaa ñu daje fa naan dañuy teeru benn yonent bu yàlla yónni mu ne bi ma déggee loolu maa ngi ca kaw garabu tàndarma yi tuuti ma wadd ca garabu tàndarma yi daanu ci suuf dee ndax mënatuma woon téye sama bopp nee na noonu dafa mel ni sibburoo ma dal dafa mel ne ngelawoo ma dugg ci kaw garab gi ba ma déggee wax jooju ndax looloo ma fi indi mu ne ma daal di gaaw wàcc ma song waa ji ne ko lu xew waa ji daal di may nettaliwaat wax ji rek nee na sama patron daal di may pes pes moo xam ne kenn xamul ni pes mi rëy nee na lu ci sayoon ma ne ko du dara damaa dégg muy wax lool rek ma bëggoon koo laaj ndax ma am information mu ne ma loolu sa yoon nekk ci dama nga continuer sa liggéey mu ne ma dem continuer sama liggéey ba ma wàcc mu ne ma dajalaatu tàndarma ya nekkoon ca tool ba ba ngoon jotee ma génn jëm medinatul munawwar mu dem ma dugg fekk mbooloo mi toog ma seen waa jooju ñu naan mooy yonent bi mu toog ci digg mbooloo mi yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam ni ko yàlla binde woon mbooloo mu mu mënoon àndal boo ne koo jàkk xam ne kii mooy muhammad lu tax maa xalaqal ilahu wala tura basharan yura ka muhammadin baynal wara ñi yàlla bind ñu ñëw ci kaw suuf fekk ñu fi ku mel ni muhammad ña dem alaxira fekk ñu fa ku mel ni muhammad muhammad ñi mu fi bàyyi ku mel ni moom nekku fi moom dong mooy muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na ma ñëw ba jege ko daan ne ko lii sarax la dégg naa da nga ànd ak mbooloo bu bari xam naa ne dañ aajowoo li ma jox ko nee na mu daal di woo saxaaba yi ne leen bismillah lekk leen mu ne moom bu am saka yadahu mu téye loxoom falam yaakul moom lekkul fa qultu fi nafsihi haza wahid ma ni lii de benn la ca la ma sama kilifa ga waxoon ndax waxoon na ma du lekk sarax mu ne ma dellu ba beneen yoon ci beneen bis ci beneen ngoon ma daa di ëmbaar sama tàndar ma ñëw mu ne ba ma ñëwee ba ci kilifa ga ma daan ne ko am kii moom du sarax waaye addiya la mu ne ba ma ko waxee loolu dafa raxasu daa di woo gaaña ne leen bismillah mu ne ma gis ko muy jël di sex ma ni kii mooy ñaareel bi ñaareel baa ngi nii ñaareel baa ngi noonu ba may def loolu nag maa ngi ko fekk ci benn place buñ naan baqi al gharqad mooy fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan denc daan suul ay àndandoom ci armeel yooyu nga xam ne moo nekk ci wetu jàkkaam ji nee na feefu laa fekk yonent bi fekk am na kenn ci saxaaba yi ku faatu mu ko doon denc falaa ko fekk mu ne faraaytuhu jaalisan wa alayhi samlataani salman ñaar yiñ ko digaloon ñetti màndarga lañ ko joxoon gis na ñaar yi nee nañ ko du lekk sarax yonent bi lekkul sarax si nee nañ ko addiya lay lekk lay nangu nangu na addiya bi lekk ci waaye ñetteel bi mooy tampon bi ñu defal yonent bi naka lay fexe ba gis ko mbokk yi Salman fekk na yonent bi ci place bi ma leen wax léegi am saxaaba bu faatu yonent bi di ko denc Salman ñëw fekke rob bi nee na maa ngi fekk yonent bi mu ngi sol ñaari mbubb bu ñuy tuddee faari mbaam mbub moo xam ne diggante mbagg mi ba ci suuf kenn du ko ñaw ci kaw rek ci suuf rek la ñuy takk su ko defee nit daal di koy wékkoo mu mel na grand mbubu nee na ñaari mbubu yu mel noonu laa ko gis mu sol ma ñëw nuyoo bi ma nuyoo mu ngi toog jonkon ma wiiri ko ci ginnaaw di yër di xool comme wax na mbubb yi may xool di xool nee na yonent bi siggi xool ma xam li ma bëgg mu daal di añ mbub mi rek ma daal di seen tampon bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na ma këpp ci kaw tampon bi di ko fóon di jooy di ko fóon di jooy ma koy fóon di jooy yonent bi daan may laaj sallallahu alayhi wa sallam ne ma maa xabaru ko luy sa xabaar yow luy sa mbir mu ne ma nettali ko fa ma tàmbalee fa ma jaar ba ma yegg si fii nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di woo saxaaba yi ne leen déglu leen waajim ñoom ñëpp ñu ñëw ma nettali leen histoire bi ñoom ñëpp ñu yéemu yonent bi kontaan sallallahu alayhi wa sallam waaye mbokk yi salmaanul farisi bu ñu ñëwee mu duggee ci lislaam li gën a rëy lu mu def mooy xandaq xandaq xeex la boo xam ne buñ ko waxee rek xel yépp day dem ci salmaan ndax yéeféeri màkk ànd nañu ak abu sufyaan nekk quatorze mille hommes abu sufyaan jiite leen ñu bëgg a songi madinatul munawwar faagaagal jullit yi jeexal leen ci kaw suuf te boobu yonent bi préparé wu ko yonent bi amul arme amul ay nit yu mën a dékk loolu waaye amul ay arme yu mu mën leen yu mu leen mën a jox pour ñu aar Medine yonent bi woo saxaaba yi suuraa diisoo di leen laaj luy seen xalaat salmaanul faris yi génn ca digg mboolo ma ne ko ñun bu doon ñun la ca Iran ca faris ca Perse dañuy gas benn kondir gu mag doxale ko sunu digganteeg ñoom bu ñu ñëwee duñu mën a jàll yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàmbali gas kondir boobu fa la ko yàlla joxe kiimtaanam yu mag yi muy dóor pikk bi pikk bi di toj xeer yi mu naan maa ngi seen soroori kisra maa ngi seen lislaam di dem di jolli saa yu dóoree leer génn mu ne seen naa barabu sàngam saa yu dóoree mu leer gi génn mu ne seen naa barabu sàngam ba xeer ba toj sahaaba yi gas xandak muy kondir bi ñooñu bi ñu ñëwee yéeféeri bi ñu dajaloowee yéeféeri màkk ak yahuti Medine ak la ko waroon ñoom ñëpp ñu coalisé ne dañuy song yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam ba sunu borom subhanahu wa taala di ñu nettali ci alquran ne is jaaukum min fawqikum wa min asfala minkum wa is zaagat al absaaru wa balagat al qulubu al xanaajir wa tazunnuna billahi zununa keroog ba gaa yi dafee mbooloo ngeen den di seen ci kaw ak ci suuf yéen seeni xel ak seeni xol demoon na ba nekk ci seeni put ngeen tiit ba ngeen commencé sax di ñaaw njort ci yàlla keroog yàllaa leen musal keroog wax naa leen ne Abu Sufyaan àndoon ak quatorze mille hommes ci ay yéefér ñëw ne dañuy song yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye yàlla nii la ci musalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi salmaan ci lalu dee keroog bi salmaan nekkee ci sukuraat dafa woo jabar ji jabar ji ñëw mu ne ko dénkoon naa la parfum mu ne ko waaw ne ko demal nga indi ko ndaw si indi parfum bi mu ne ko dama nga indi këllu ndox bi mu indi mu ne ko jëlal parfum bi sotti ci ndox mi ndaw si jël lat koloñ bi daal di koy sotti ci biir ndox mi mu ne ko yëngal ko ba mu dajaloo mu yëngal ko mu ne ko wis ko sama wet ndax am na mbindeefu yàlla yoo xam ne duñu lekk duñu naan lekk yitteelu leen ñu ngi nii sama wet ndaw si daal di suy parfum bi li wër salmaan yëpp ci kawam ak li ko wër mu ne ko tëjal bunt bi te génn ndaw si tëj bunt bi génn ndaw si toog diir dégg ay yëngatu dégg ay yëngatu ndaw si daal di dugg mu fekk salmaan radiyallahu anhu wa ardaahu daan nay faatu mbokk yi salmaan bi mu génne àdduna dajane naan alam yépp ñu fekk salmaan radiyallahu anhu wa ardaahu li mu yor ci àll matul ñaari dërëm waaye mbokk yi lan la ñuy jëlee ci dundu Salmaan mooy jaamukatu yàlla la woon ku daan xeex ci yoonu yàlla la woon waaye ku nangu woon liggéey la danaan dem jënd mbir dërëm defar ko ba mu baax mu jaayee ko ñetti dërëm daan dem jëndi ay xeej jënd ay fet defar ko ba mu baax dërëm la ko daan jënde defar ko ba mu baax mu jaay mu jaay ko ñetti dërëm benn dërëm bi mu yóbbu këram benn dërëm bi mu liggéeye ko benn dërëm bi mu def ko fi sabilillah kon mbokk yi kii mooy salmaan fa salaamun ala salmaani alfarisi yowma qaama yabxasu anil xaq anil xaq fi kulli makaan yàlla na jàmm nekk ci salmaan keroog bu mu jógee di gëstu dëgg ci barab bu nekk fa salaamun ala salmaani alfarisi yowma arafa alxaq fa amana bihi awthaqa al iman yàlla na jàmm nekk ci salmaan keroog ba mu wër jógee di wër dëgg ba dajeeg moom mu daal di koy gëm dëggi dëggi ngëm wa salaamun alayhi yowma maat wa yowma yubasu xayyan yàlla na jàmm nekk ci salmaan bis bu muy faatu bis bu muy dekki yàlla na jàmm nekk ci ñun asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu